أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokk yi ni seetaan ci àdduna bi yépp ak di ñu déglu ci suñu rajo Origine FM 88 point 4 ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar tey ñaan sunu borom maynu nu yendu ci jàmm te fanaane ko di ziyaar suñu kilifay diine yi di ñaanal it suñu kilifay aada yi nga xam ni yàlla miy tànn buur moo leen tànn li ko tàmbalee ci son excellence le président Macky Sall ba ci ki gën a suufee kenn ku ci nekk rek lépp lu ñu la jox pour defar réew mi yàlla na ci yàlla jàpp ba lépp sotti e di ñaanal euh, sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabarkàlla fekk leen fa yàlla na yàlla dolli seeni xéewal te musal leen ñu ñibbisi ci salaam te indaale lu doon nag di ñaanal ñi feebar yàlla nañ wér ci jàmm ñi nga xamante ni dañu juumoon dem kaso bu buñ fa jógee yàlla bu ñu defati lu leen fay dugal di nuyu waa réew mi yépp nag tey ñaan yàlla mu sàmmal nu sunu jàmm ji ci réew mi di bal ak ñëpp it tey balu ak ñëpp ndax xam ngeen ni weer wi nu génn day weer woo xamante ni weer la woo xale wu rëy rëy la ndax sunu borom moo wax ni moom moo koy fayal boppam yónniwul kenn kon lépp li ci nit ñi jaamu yàlla yal na leen ko yàlla fay te yàlla euh, may nu ñun nu fekkee déwén waaw ñu fekkee déwén bee bee wooraat weeru koor yàlla gën noo dolli jàmm gën noo dolli salaam ah bokk yi nag euh, xam ngeen euh, li ñuy waxtaane rek moo di Sénégal actuellement ñun sax def nañ ci ay émission yu baree baree baree bari parce que dafa mel ni suñu diine ji dañ ko bëgg a def folklore folklore te diine ak folklore dañoo xaw a sore ci biir weeru koor wi gis naa ci yoo xamante ni dama mujj sax waaru ci yàlla ndax da gis benn quartier ñetti xale ñetti xale wala ñeent sol seen tubay yu bon yu tilim yor seeni ndënd di tëgg ba quatre heures du matin te kenn mënu ci dara boo waxee ñenn ñaa ngi mbubboo Cheikh Ibra ñenn ñi mbubboo Sëriñ Tuuba pour di tooñ di tappage nocturne parce que yow boo liggéeyul da ngay taxawaalu amoo loo def mais am na koo xam ne mi ngi ci koñ bi war a nelaw moom day xëy liggéeyi te diine ji nii ñu koy folkloriser dëgg-dëgg dafay yàq rek waaye du defar dara parce que léegi sëriñ <laughs> si moom ay fonds de commerce la ko gars yi def kenn ku nekk daal dinga fexe parce que Sénégal léegi ñëpp ay yalwaan nag far foo dem koñ boo dem ñu ngay yalwaan nan dañuy joxe ndogo dañuy def nii dañuy def naa tout ça du dara boo bëggee teraanga dama leen koy yàgg wax demal nga liggéeyi. waaye tappale mënee su cee dem dégg ngeen message bi nga xam ni moom la mun Mountakha Bachir xalif général de Mourides def ñu koy ziar bu baax parce que jot na nag te yii yëpp ñun yàgg nañ koo wax parce que Sénégal dañuy bàyyi mbir muy dema a dem a dem ba ëppi loxo ñu bëgg koo faj yooyu yëpp gisoon nañu ko léeg-léeg nga gis benn waay bu xëy ba mu yàgg rek mu wutu su roqam <laughs> defar as njàkkaam waaw waaw weddi ñëpp ngeen ngeen di xoole parce que ñun lu nu dal ñoo ko teg suñu bopp il faut prendre tes responsabilités bi mu jotee xam nga Alaaji Abdoul Aziz baax bu ngeen gisee saa yu dara amee Sénégal nit ñi di ko teg parce que ni mu taxawee woon la lépp lu mu war a wax day jóg wax ko waaw waaye du toog ba mu yàqu mu soog a jóg yu baree bare bare mi ngi am ci réew mi mi ngi am ci tarixa yi dëgg dëgg ñi jiite tarixa yi war nañ ci jóg defar ko Sëriñ Tuubaa bu fekkente ne yow da nga ci bëgg a wute xaalis xamoo Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa bëggul woon xaalis man dem naa ci dëkk boo xam ne xaalis ban ko jox bépp fa ko suul bi muy dem sëriñ Tuubaa wax bind na sax ni sa un taqu abwaaba kullu naari te joodu bu dirhami wa dinaari sëriñ Tuubaa mosul mosul daw wuti ci xaalis mosul daw wuti ci lix masul daw wuti ci yii di neex neexi àdduna sëriñ bi mosu ko bëgg sëriñ bi li mu a def mooy jaar ci yoonu siraatal mustaqim bañ ko ba tudde boppam xaadimu rasul di di jëwriñ walla jaam ci ci ci ci ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ci yàlla ah, di di di jëwriñu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jóg topp ko bu fekkee mbokkam ngaak ak loo mën a doon ci moom xamal ni boo dee fo waaye tàggool ak Serigne Touba Serigne Touba fowul fooluwul Serigne Touba fowul fooluwul te nag léegi tarixa yi da ngay gis koo xam ne amu ca benn baat parce que bu dee danga dem Touba kenn képp moo yor baatu Touba fii nu toll nii mooy sëñ Mountakha Bassirou bu waxee rek jeex na bu fekkee murit nga d'accord ngay wax rek bu fekkee nag bu sëriñ bi waxee nga dindi ko dem defi leneen bàyyil yoonu murit te tuxu Touba dem saw yoon te yenn yu bari mi ngi am Touba nii sëriñ bi ah chantier bu rëy rëy rëy nga ubbi parce que gars yi nag dëgg-dëgg fi ne dañuy foyee sëriñ Touba dañ koy foyee dañuy foyee sëriñ si dañuy foyee tarixa yi dañuy fooye lépp parce que euh, yor sam ndënd sama waay guddi nit ñi tëdd war a yeewu fajar ak ni ñuy sonne pour am oto dem liggéey ngay tëgg say ndënd ba quatre heures te doo dara doo dara ay ñetti nit koy def ñeenti nit mel mel ni nit ñi dañ leen a far ragal et puis état du Sénégal aussi am na yoo xamante ni bu xoolal ni ñuy baase koñ yi da ngay xëy xëy jaar ci koñ ñu fekk ñu teg fa baas sans autorisation ni dañuy ja fanaanee jàng mais jàng yi jàng yi c'est trop di tàngal nit ñi ba quatre heures du matin te yow li ngay def du diine du Sénégal képp ami jàng ak Gàmbi ci adduna bi boo demee Makka doo ko fa gis Makkatal mu karam waaw nit ñi bu ñu julee ci jumaa ji sax bu pare paree avant deux minutes ñu vidd na mais ñun daal diine léegi c'est du folklore mel ni ah, mam taaxur ay taaxuraankat ci diine mais kilifay diine yi vraiment <laughs> affaire yi am nii te nag <laughs> mag mu mag mu baax mas na maa wax ni ma kër gu tas ab sët tas kër gu tas rek sët yaa ko tas nañ ci jóg nag te taxaw ci bu baax a baax a baax parce que Serigne nag képp kuy fo mbaa ngay taaxuraan dëgg-dëgg bokkoo ak Serigne Touba waaw tapage yi nii def ci réew mi bari na léeg-léeg nga jaar ci koñ ñu bâche hmm? nit koo xamante ni dañ saan ñu takk seeni rajo kenn dégg te yaa ngi daan rek koo xam ni c'est un malade ngay jànga jàng jàng des fois une deux heures trois heures te li ngay jàng dara góor ñaak jigéen ñaa nga jaxasoo di def lu bon bu ñu pare ngeen naan diine la loolu ban diine la quel diine. bàyyi leen yooyu waay bàyyi leen yooyu sëriñ Touba bu dem leen ngeen defi leneen dem leen ngeen defi leneen sëriñ Touba mësul nekk ci folklore amul fenn fu ñu lay nett leen ni sëriñ Touba dafa fanaan ci dëkk ñu fanaan faa tëgg ba bët set wax leen ma ko mais nii ngeen bëgg a defee diine ji wax dëgg yàlla ëpp na ah kenn ku nekk dégg nga wut sa affaire di di suggali kooka jaay ay tadoo dara sëriñ Touba li mu am lépp moo ko liggéeyal boppam lu ca waay am neel barki sëriñ Touba rek. kenn ndax sëriñ Abdoulaye Laat nee na ba muy liggéeyal yàlla di ko ñaan ku naan amin sax nekkul ci wetam ñu dem ba heure bi sëriñ bi liggéey liggéeyam bu rëy bi ay ay ay ay ay ay ñoo xay kenn xamul lu ñu doon rek ba jóg bëgg koo yàq waaw ba léegi nag Touba sax lu nee nga fa moom lu nee nga fa nag léegi waaw te loolu wax dëgg yàlla moo tax toujours man damay jooy sëñ Abdoulaye Laat sëñ Abdoulaye Laat moo tax ñu bari di ko jooy ndax fullaam ja ak dëgër ga ak xam réew mi xam adduna nga xay loo def loo xëy arrangé wul yoonu murit boo ko defee 9h 9h30 Serigne Abdoulaye Lahad dindi ko ba mu set wecc waaw. waaw jël leen seen i responsabilité waay parce que ñii mënuñ ñoo te mënuñu mënuñoo yàq yoon mi de seen bopp la ñuy yàq yoonu murit moom kenn mënu ko yàq sëñ Touba dootu fay mais nag li ñuy bañ mooy murit yi dem ba di dem ziar sëñ Touba ñibbi te waroon nañoo am jëwriñ yoo xam ne bu ñu demee Touba dem këram mais jëwriñ yi boo ko tañee loo fay wuti. buy def loo xam ne ñeme woo ko <laughs> loo fay wuti nañu leen nit ñi waay Touba benn baata fa ne boo ca d'accordul génnal dëkk ba ngeen defal ma numéro yi ngeen taf officiel ma numéro yi pour suñu bokk yi dugg ci ndax ñu baree baree bari nag ñiy woote diine ci réew mi lakkal nañu leen tàngal nañu leen it kenn mënta nelaw ci koñ yi léegi ndax ay ay ñetti nit ñeenti nit yor seen i ndënd mbaa ñu takk seen rajo di yuuxu ba ba ba quatre heures du jooju diine jan diine la diine jooy tooñe du diine yow boo jaamu yàlla jaamul yàlla rek ja jaamu yàlla jëlul takki rajo jëlul folklore jëlul ay ndënd waaw mais nag da da ñun lañu état bi sax lañ yem parce que déficit d'autorité bu amee cim réew lu neex wax nii lay continuer ah parce que bu fekkoonte ne dañ leen faa fekk ak i liif duma leen ba ñu ba ñu mandi wallahi boo lëgee dootuñu ñëw di tàngalub koñ mais nag lu waay def ñu bala ca da ngay gis benn koñ boo xam dañuy jekki-jekki ñoom waa koñ ba wala xale yu fa dëkk mën naa sax dëkkuñu fa ñëw teg seen i kenn du jàll defar seen i baas tak seen rajo di yuuxu mais vraiment état bi di xool quoi état bi xool yi ngeen war a raxas bari na aka bari aka bari réew mi nii muy doxe dëgg-dëgg ñu baree baree baree bari seen yaram daw na tiit nañu parce que léegi nag ginnaaw maa tey ji moom moo fi xew lu neex waaye def ci réew mi te kenn mënu ci dara ah moomu réew pour defar ko dina jafe am réew day tegu ci charte nit ñi respecté lu waay mais fii kenn respecté wul dara ku nekk ku nekk ku nekk lu la neex ngay def et puis li ci gën a metti mooy police day romb gendarmerie di romb te ñu war koo dindi waaw chef de quartier ba ni Thiel waaw chef de quartier ba ni Thiel ay ay nit di tangal sawaak waa koñ te teguñu ko fenn du gàmmo du daara takk seeni rajo di yuuxu di di daanoo ko te dañuy c'est faux duñu dara Sëriñ Tuubaa ñi koy ñi koy topp dëgg dëgg dëgg doo leen dégg ci coow bu ñuy wax sax doo ko dégg bu baax waaye léegi lu ne dugg na ci yëf yi rax ko parce que kenn ku nekk rek yaa ngay lijjanti as roq soo musee dara <laughs> ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si noo tudd ak foo nuy woowee. sëñ bi man maa leen di woowee Yof laa yéen. ah. Yof laa yéen laa leen di woowee. acca bisimilah. waaw ñu leen di nuyu di leen ziar. ñoo ngi leen di delloo sama gaañi bu ngeen ma mënee yëkkatil haut-parleur bi waaye. Ah, waaw ñoo ngi lay dégg soxna si. waaw ku wax fi mu nekk nii daal wax dafa jot. balaa wax a paase. waaw kay ndax sa kër sax boo fa yoree say doom. Mhm. te doo wax. Mhm. ku jóg dina def lu ko neex. wallaahi. te dëkk bi léegi lu waay neex def. lu waay neex def de waaw. Euh, sans loi li ñu naan sans <laughs> li nga wax sànq la bu ñu leen fa fekkoon benn yoon ñaari yoon ak ay liif dootuñu ko defati. wallaahi wallaahi. te léegi yalwaan nee naa kenn kenn kenn jaayatul gerte bi jaay kenn defaratul njambaan bi jaay xale yu góor yi kenn kenn yalwaan rek góor a jigéen nag. yalwaan suba ba ngoon. yalwaan da dawal sa oto dajeeg ay Baay Faal ñu ñëw dugal seen bopp. arrêté sa oto. taxaw ci kanamu oto bi ne la boo ñu saraxul doo dem. ah gis nañ ko ci réseaux sociaux yi sax. ñun nag booba avant ñu koy gis boobu ba tey ñu ngi koy dund daaw ba ren. wallaahi. du ñu liggéey bu guddee dégg naa ñu lekk seen ji bi ba baax xëyaat ñëw taxaw. wallaahi jigéen ñi liggéey di dang di dang ñi ñun nag lañu ñu gën a xalifa bi nañu wax na xalifa yi wax. Mm-hmm. wax dafa jot balaa wax a weesu. wallaahi. kenn du ñaan autorisation ku ñëw taxaw li nga wax léegi ñëw tànqal nit ñi wallaahi nañ bàyyi sëriñ si ñuy commercé. waaw nit ki da am jom. waaw kay waaye tappale rek. Hmm. maa ngi jéggalu sëñ bi. yàlla ñu yàlla sotti yërmande ci dëkk bi. amiin jërëjëf soxna si yow li nga wax am na solo nañu wax balaa wax a weesu ñàkk jom nag la parce que nit kuy yelwaan te dara dalul xam nga ne moo jom. te léegi nag ñëpp a yelwaan sans rousse d'ailleurs booy traversé réew mi sax dëkk boo dem doo daan ba ñu nga fa taxaw di yelwaan mel ni ñun ñun ñëpp dañoo xëy doon yelwaankat manja xam nga ni kuy yalwante dara dalu la dara ci ngor newul ci yow as gor du tàllal loxoom naan sarax ma te dara dalu la waaye ñàkk jom gi dafa bari ah ñàkk jom gee bari ah te it ñi war a wax nañu wax autorité yi aussi ñi yor autorité ñooñu sax ñoo ñooñu indil problème parce que yow bu fekkente ne da ngeen na yor police yor gendarmerie nit di tàngal ay koñ dele dëkk kenn du wax dara kenn du ko dindi mais c'est grave ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam man maa ngi tudd Jaxate Ibrahima maa ngi dëkk Sacré Cœur. acca sëñ Ibrahima Jaxate bisimilah. Euh, li njëkk intervenir mooy. Mhm. Euh, ci tarixa yi. Mhm. gis mhm. sëriñ si dañ leen xool ñuy ñuy ñuy def boo xam ne. kenn du wax. te état bu jëlee mesure. ñu ne kii bëggul sëñ Tuubaa wala kii bëggul Alaaji Maalik <laughs> waaw yaa sa aussi. loolu la ñuy politiquer. Mm-hmm. ba nga xam ne état bi ñëwatu def te état bi tamit. Mm-hmm. ñoom tamit di ko composé mooy Tijaan Xaadir Murit ainsi de suite pour laayeen. Mm-hmm. donc tarixa yi am nañ fi doole doole koo xam ne. boo ne taalibe euh, euh, euh, Baay Faal bi du def li wala nga Murit bi du def li nangam nag wala Tijaan bi du def li. ñu ne kii dafa contre Sëñ Tuubaa. kii bëggul Sëñ Tuubaa wala kii bëggul Alaaji Maalik. yaa aussi. xam dëgg la ba nga xam ne euh, état bi tamit. Mhm. ñu euh, ñiy composé état bi. Mhm. mais dañ fee dañ fay juddoo màggee fi yaroo fi nekk ci ay koñ. di mhm. demee ngénte di am fii nijaay jaay bàjjan. donc ñoom tam loolu rek la ñuy xam. c'est pas parce que ministre la mosunoo xam loolu non non non. jóge wuur kaw asamaan ne tëb déedéet dañu fee juddoo màggee fi yaroo donc loolu rek la xam donc boo dikkee ne diw ñu ne kii daal bëggul sëñ bi kii daal kii lu ñu def kenn du ko fi defee. or que pour loolu la mhm. règlement pour loolu la ah mhm. mais mhm. léegi fi mu ne boo ko boo boo boo amee koo rek réseaux sociaux yi dox ci bëggul kibit bark débb li la def bëggul murit yi wala bëggul tijaan yi léegi na sa fekkee nag waaw man baax na li nga ñii dinañ ci ka te kaddu lañ ko wax wallaahi donc yaa des fee yoo xam ne sëriñ si ñoo ci war a jóg réglementé ko sëriñ Tuubaa <laughs> eh. boo gisee xasaat yi mës na ci tàgg sëriñ wallaahi wallaahi mës na ci tàgg doomu aadama <laughs> mës na ci tàgg nijaayam yàlla kese rek dong mhm. Muhammad la la ci tàgg mhm. lu tax mënoon a topp ay paam sëriñ mhm. Tuubaa bi muy def Mhm. dafa def pour ñu teg ci tànkam fi mu teg tànkam ñu teg ko suñu tànk. jaamu yàlla. exact. pas mhm. mhm. moom ñu koy jaamu mbaa ñuy jaamu sëtam mbaa ñuy jaamu doomam. pour ñu jaamu yàlla la. donc dama bëgg sëñ Tuubaa gis nga ñu bëri ñu ngi dox. alal la di wut ci tuuru sëñ Tuubaa. kese rek nag doomu. waaye nag ah li naan rek keroog yomal xeyam sëñ Tuubaa dana yëgu ñu bëree bëri. dana mere ñu bëree bëri. parce que la mu bëggoon ci taalibe yi. mooy bëgg yàlla sopp yàlla mhm. doo noy lu biir yàlla mhm. xasaay ji xool ko mhm. ban nijaayam nga gis mu tagg ko ban maamam nga gis mu tagg ko ki naan rasulullah kay mooy jaamu yonent bi kooku sëñ tubaa taw xiit la doon doxe taw xiit la doon doxe taw ku bëggul taw xiit nag bul ànd ak moom jërëjëf jërëjëf sëriñ bi contribution bi am na solo waaw mais xam nga am na lu mu wax loo xam ni lu am la léegi-léegi da ngay gis par exemple bu police fekkoon gaa yooyu yor seen i ndënd di tëgg ci mbedd mi te du ñu dara sax amuñu sëriñ tekki wuñu dara ci tarixa murit bu ñu leen duma woon ñu ni ñu ni nguur gi daa contre sëriñ Touba parce que léegi rambaaj yi dañoo bari jaxasekat yi bari waaw te te ñooñu ay sagari nit lañ yoo xam ne dëgg-dëgg euh, mais autorité bu fekkente ne da ngay xool naan kii murit laa ko tiyaan laa abdoulayen laa yooyu yow yow dootoo autorité l'autorité s'applique sur tout le monde nous sommes tous des citoyens boo dee laayee nag boo dee murit ak boo dee tijaan ak boo dee cadre ci yam ay citoyens sénégalais lañu la loi nañ ko appliquer pour tout le monde amul lii laak laala salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. sëñ bi noo tudd ak foo Serigne Fallou Mbacké laa tudd Dakar laa lay woo. bisimilah Serigne bi Mbacké. waaw damay wax ne rek li ngay wax am na solo mais bi bu ko poussé ci murid yi kese yow xam naa la ku baax nga suñ mbokk murit nga mais débat bi loolu. Hmm. Sénégal yëpp la. Sénégal yëpp la kay. problème bi sénégalais yëpp la tarixa yëpp la. wallaahi pose bu ñuy wax nañ ko généraliser ndax ñeneen mën nañ ci profito. Hmm. di siise murit yi di leen atte di leen dugal ci condamnation yoo xam ne ni loolu amut. Hmm. ñu néew un pour cent ñiy tooñ motuñ un pour cent ci murit yi. ñu ngi mel ni ñu a mel. dëgg la bari wu ñu moom waaw suñ tubaay ñi ngi tege ci yoon ñooñu un pour cent lañ am na responsabilité boobu dëgg la dëgg la dëgg la voilà waaw dafa am loo xamante ni si manière Sénégal la tarixa boo dugg foo dugg fu ne di fa fekk lu mel noonu dëgg la mais tudd turu Sëñ ko di ci wax sa xalaat mel ni ñoom ñoo sikk yow ab taalibu Sëñ Tuubaa nga waroo nangu loolu wala waaw dëgg la mais nag sëriñ bi wax dëgg yàlla ñiy déranger nit ñi ci mbedd mi nag ñi ci ëpp sëriñ Tuubaa la ñuy wuyoo wax dëgg yàlla sëriñ Tuubaa la ñuy wuyoo da ngay gis ko yorum ndëndam ni Baay Faal la Cheikh Ibrahima sëriñam da ngay gis ñu ta def seen baas ci mbedd mi di jàngi xasaayit di yuuxu di tangal nit ñi ni Serigne Touba la ñuy tuddoo looloo tax nit ñi toujours il faut ñu di leen tudd parce que nag quand même euh, ñëppay déranger sax am na daayiray tiijaan yoo xam noonu la ñuy def am daay moom daal ñëppay déranger du du murit yi donc waaye nag ñoom ñoo ci ëpp nag salaamualeykum. maaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd foo nii woowee. Géejawaay laa leen di woowee. acca bismillah. man daal sëñ kontaan lool ci yow laa def yàlla. waaw waaw. parce mhm. que sëriñ Tuubaa li nga wax ni mu ci kontaan sax xamoo ko. <laughs> dama ni. Ah. xam nga man mbir mi fu ma ko jàppee dëgg-dëgg. Uh-huh. dama jàpp ni police bi moo démissionné ak gendarmerie. ah oui parce que bi ñu nekk xale. Uh-huh. amul lenn looy def te dooy demandé autorisation. wax nga dëgg de. wallaahi boo defee lenn lu dul loolu bu am na heure xam ne bu fa yeggee ñu ñëw. wallaahi. wallaay wax nga dëgg jërëjëf suñu mbokk moomu doon woote waaw maanaam daal bu fekkente ni parce que nag kilifa li ñu koy doyee mooy mu jiitu bu gisee lu nar a yàq këram mu faj ko balaa génn kër ga te yu baree bari gis nga léeg-léeg da gis ay ñoo xam ne dañuy sol yére yi Baay Faal nekk ci tali bi tëdd ci kanam oto ba oto nit loolu loolu ñu nekk ci yoonu murit lañ koy gise man murit la waaye nag yooyu yëpp yiy déranger nit ñi li ci ëpp ay ay ñuy woote turu sëñ Touba ñoo koy def ñooy tëgg ndënd yi ci mbedd mi ñooy yuuxu ci mbedd mi guddi ñooy déranger nit ñi da ngay gis ku jël boppam sax dugal ko ci biir oto jàmbur nang ko sarax ma par force yorub kël loolu ñi ñi ñi ñi sëñ Touba yi seen sëriñ ñoo ko ñoo koy def de moo tax il faut ñu di leen tudd et gis nga la dëgg dëgg ñëpp a ko bokk salaamualeykum. asalaamualeykum. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. xam naa tur bi dama koy leb. lebal naa la. waaye daal musuma gis ko dëggoo ni yow. ah. musuma gis ko dëggoo ni yow. <laughs> gis nga te ku dëggu nag. yàlla mooy fay borom dëggu yi moo leen féetewoo. waaw li ngay wax te muy dëgg. yàlla moo lay fay. amin ndax nit a ngay lor moroomam guddi. ci ay yëngu-yëngu. kon ni mu la ko waxee ci tarixa yi ñëpp mhm. maanaam noonu la demee mhm. am na nag xëy na ñu si gën a exagéré mhm. loolu dina am waaye daal man li ma gis mooy comme ni nga wax rek moom réew mi nañ tëral loo xam ne ñëpp a ca yem waaw waxtu woo xam ne ñëpp cay ca yem waaw kay waaw waaw dinañ xam ñi ñu topp seen bakkan ak ñu topp seen bakkan ah, ah. <laughs> waaw loolu rek la jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf ah bu ñu jëmee fekk ay nit yuy def ay conneries ñu arrêté leen ñu naan euh, euh, parce que ay murit ngeen doon woote te ñooñu du ñuy taalube wallahi ñooñu li Serigne Touba woote ak li ñu nekk c'est différent billahi du ñu dara la Serigne Touba doon wax sëñ Abdoul waxoon ni euh, sën xaw ma affaire sën murit yooyee mun leen ab sën xaw ma lu dul boo balee sotti ji ko fa wallahi ñu li ñu nekk daray Serigne Touba newu ci mais nag dafa mel dañ ko rus a wax parce que y a des sujets yoo xam ne réew mi c'est tellement sensible que ñu bari ñemewuñ koo laal boo dekkee murit daal defal lu la neex mais kenn du la tudd parce que murit nga parce que buñ la tuddee comme ñun murit danoo bàkkee noonu danoo yenu suñuy daal ay fanatique lañu ah nañoo xeex ak yow mbaa ñu dóor la sax ay yat mais du dara du ci dëgg ànduñu ak Serigne Touba du ñu taalubee Serigne Touba Serigne Touba koy foo bokkoo ci moom Serigne Touba du foo Serigne Touba du foo Serigne Touba li mu woo nit ñi mooy jaar ci yoon. tegu ci yoonu siraatal mustaqim loolu képp la fi sëriñ Tuubaa jàngale waaw loolu képp la fi jàngale waxoon na it bu fi jógee nu ñuy def waaw xam nga li ma la kon nag bu fekkente ni da ngaa bëgg woote woo sëriñ tubaa te lépp lu yàq réew mi yaa nga ca xamal ni yàq sëriñ tubaa bokku leen dara léegi nag kilifa yi ñoo war a am matuk arrêté loolu te nag yàgg na fi nit ñëppay jooy ñëpp a koy jooy xam nga dem bay tëdd ci kanam otob jàmbur yorub këll te dara dalu ponkal moo xëy sax bu demoon entraîné mën naa dem ca làmb ja boo yër ay wata am na touriste tubaab boobu dafa ma ne dootuma ñëw Sénégal ndax ñooñu fii ci pont bi ab tubaab ndax waa ji par force la la ko daw si sarax ñenn ñi sax dañuy sàcc waaw bu yér noonu bu gisee lu lu begg nal mu yóbbu ko ngeen naan Serigne Touba ngeen àndal te sunu autorités yi yéen yéen a war a régler loolu la loi doit s'appliquer sur tout le moon nga dib sëriñoo ngay taalibe woo ngay koo mën a doon loi bi ñun ñëpp la fi nekkal ku nekkul ci li mu war a nekk nañ ko ca dindi pourquoi ngeen ragal pourquoi vous avez peur pourquoi vous avez peur de mettre sa pays là sur les am réew dañuy respecter loi yi mais Sénégal daal lu neex nit def léegi quoi ñu di ko xool parce que murit la lu ko neex def mais loolu teguwul fenn salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Abdoulaye la ah sëñ Abdou kon bisimilah. <laughs> ah sëñ bi ñu ngi lay ziar dëgg dama du rombi nopp. ah. <laughs> dëgg du rombi nopp. <laughs> dëgg yàlla li fi dëgg la de. jërëjëf sëñ waaw dëgg la de. waaw waaw doy na waar nag doy na waar. doy na waar kay waaw. Ah. doy de waaye bu fi sa turandoo am de. waaw wallaay waaye ñi yàq ñi yàqal ñëpp de ñëpp ñëpp de yàgg yàgg dana dana di jóge de. léegi ñu dem seen yoon bu soobee yàlla. ñoom ñëpp de bu leen fi tax a jóg dana fi des bu leen fi taxut a léegi ñu dem seen yoon. <laughs> waaw dëgg nag moom du roob di nopp ndax ñi nga xam ne sëñ bee leen a jóg ñi nga xam ne maam seen ittee boppoo leen tax a jóg. ah voilà mu ngoog. <laughs> jërëjëf. jërëjëf Cheikh parce que xam naa ni bu soobee yàlla sëriñ bi moom dina raxasal boppam léegi yoonam wi ndax sëriñ tuwaa moom nee naa leen bu bu amoon ku ko mën a yàqal ñu ko yóbboo Gabon exilé ko du dellu si ñii di jéem a takkal yoonam bi seen bopp la ñuy takkal te dinañu taq ba ni fa rip dem ñu sànni leen ca sën ba bu soobee yàlla man maa la ko wax sëriñ Touba moom ku bëgg a ànd ak moom jaaral ci yoonu siraatal mustaqim sëriñ Touba euh, du ay folklore ah du ay folklore du ay profitard mais léegi ku ne man daal léeg-léeg sax nga gis ku yor mbooloo moo xëy xamoo fu mu ko jëlee <laughs> ak fu mu ko doon ne parce que yëf yi nag dañ koo yombal ba mu ëpp ah, ba ku jóg rek mënoon faatiya sax doonub sëriñ salaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Ibrahima Fall Touba la. ah sëriñ Ibrahima bismillah. taalibe sëriñ Mamar Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal. est-ce que waaw. li ngay wax dara gëru ko am solo. Uh-huh. ndax ñàkk xam sëriñ Touba. Mm-hmm. mënta paase yalwaan. Mm-hmm. li Serigne Touba bàyyi woon. Hmm. ak li muy dund. Hmm. ça fait jamais jamais tellement opposé. billaahi. la mu waxoon Serigne Mourou Moustapha. Hmm. ba mu saqalee karaw ga. mu woo ko ne ko Mourou Moustapha loo jublu. mu ne ko ñàkk jot. mu ne ko yow ak nii de la fàggu dama nga watu ji. Serigne Abdou Khadir ma nga xam ne mbokkam la. ba bu ko déggee dañu ko man mii ak nit lañ ma fàggul. Sëriñ Tuubaa ne nag ki gën ci yéen mhm. mooy kii liggéey dunde tey jaamu yàlla mhm, mhm. maam serafal mi ñuy wax nag ci dàqu na liggéey ci Afrique fii ci Sénégal ci la bokkoon dëgg la kon dañoo change système bi dàq njàngaleem Sëriñ Tuubaa indi seen seen seen seen bànneexu bakkan ak jëfe saytaane dëgg la waaye Sëriñ Tuubaa lam waxoon ku yàlla bind ak lu say pexe rëy rëy mhm. mënoo ko dindi déedéet dafay wax ne mhm. tallaahi lay sa yen saxum sax sa gada mhm. inda xuluuli ramsihi xayru huda waat naa man Serigne Touba ne bàmme ah waay waay bayit woo waroon naa yegg moo tax bi may jàngal xuraan waroon naa cee boole jàngale firi tuuti parce que bayit woo wóor na ma ne Serigne joxe na ci jàngale wu leer nañ wu leer nañ sëriñ bi moom kuy fo wokkoog moom dara léegi nag wax dëgg yàlla ginnaaw ah, lu waay nang lu waay di def ah bu ko defee ñu bàyyi la ca ngay def lu la neex yor say ndënd di tëgg ba bët set koñ bu la neex baas baare dëgg-dëgg loolu ñun mënuñu koo faj loolu police ko mën a dindi ak gendarmerie mais bu fekkonte ni ku bâche te amoo autorisation ñu fekk leen faa ki liif léegi mu dañ ah parce que <laughs> ñu mel ni ñoom système ay yar ngay wut de ponkal bu fekkee xel ma wérul da nga koy faj salaamaaleykum salaam maaleykum salaam seriñ bi nootu tudd ak foo dama la tur dama la bisimilah ñu ngi lay déglu. maa ngi lay nuyu ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax. dama déglu émission bi rek ah? ma dama déglu émission bi rek de doon woote doon barkeelu. waaw li ngeen di wax noonu loolu lépp dëgg la maanaam parce am na ñun ñoo xamante ne maanaam li suñu tubaab doon wax tax li li taxoon ci suñu tubaab dañ ko dañ kaa xamul am ñi nga xam dañ kaa xam am ñoo tubaab jaam mu taxawal yoon kese mais am ñoo xam ne loolu lañ xamul loolu lañ xamul mhm. jaam yàlla dong taxoon daa bëri ñu ko wër te ko jaam yàlla maa ñaan yàlla maa ñaan kilifa yi allo waaw man maa ngi ñaan kilifa yi nga xam ne ñooy ñooy kilifa yoon yi maanaam sëriñ taalibe yi ñëw jaamu yàlla mhm. loolu daal moo ëpp solo dëgg la waaw jaamu yàlla moo tax suñu tubaab doon sos yoon jaamu yàlla doo nga taxoon ba leen taxoon jërëjëf parce que boo jaamu yàlla li nga war a am yàlla dina la ko jox yàlla mooy may mooy dëgg la waaw jaamu doo nga taxoon suñu bi loolu rek laa wax maa ngi baax di rafetlu émission jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ bu baax boobu sëriñ bi day wax dëgg yàlla ñun ñëpp dégg nañ ni doctrine mouridisme mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla léegi nag loola gars yi nee nañ ko tegg fee yalwaan ak fecc ak tëgg waaw no boobu lañ ko changé yalwaan fecc tëgg te loolu ko am jom du ko def Sëriñ Tuubaa bi mu fii ne yii xewul woon yii xewul woon Cheikh Ibra moom mu ñuy wax it Cheikh Ibra dàqoon na liggéey ci yoonu murit moo tax moo ci mujjoon ëpp xaalis waaw moo doon dimbali Sëriñ Tuubaa bu baax baax a baax yére yi sëñ bi doon sol sax Cheikh Ibra ko doon jënd ndax nangoo liggéey kenn mosut a gis bi Ibra muy taxawaalu nga xëy nag bëgg di suppi affaire waaye nag loolu lépp nag kilifa yi nag seen responsabilité ngi ci ah parce que lu waay di def ba pare tuddoo sëñ Tuubaa nga di ko dégg ay ati ati at te mënoo koo faj loola kilifa ga kilifa ga la kat du keneen ku dul ñoom tey police bu leen ragal yooyu ay da ngeen a fekk ñu nekkul ci yoon di ay murit ngeen duma leen wala ay tijaan ngeen mais yooyu yooyu jarul jarul jarul jarul jarul ragal yéen bu fekkente ni wax dëgg yàlla munu leen a munu leen a munu leen a euh, munu leen a munu leen teg seen seen seen réew mi ci ciw yoon mais ce n'est plus possible salaamaaleykum asalaamaaleykum aleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nuy woowee Chérif acca bisimilah sëriñ Ndiaye Chérif Sall laa la Ngaye Mekhe ah Chérif ah Chérif. waaw. ay waay sama mbokk ngoog waaye gëj naa la gis Sall. maa maa ngi lay nam rek. ay waay Sall waay Sall Sall. Eh, Tall. jërëjëf Sall Sall Sall. Tall est eh, dafa dafa am lu mu la bëgg a xamal. Eh, gis nga yoon mu moom. sëñ Mountakha mi ko jiite léegi. orthodoxe la. Eh, maanaam ku ci ci bëgg a def lu dul mm-hmm. dina ko digaalee ngay ci baat yi. Eh, ah waaw waaw jot na de. waaw ah, waaw dina ko digaalee Sall jërëjëf. waaw moom bëgg a ko gisal seen bopp. mbaa yaram bi féex na. tane naa bu baax. alhamdulilah yàlla na jëm kanam waay. amiin amiin. jërëjëf Sall jërëjëf jërëjëf Sall. waaw. merci kooku suñu mbokk waaw di rakk ci maam Bounama Sall ma koy nuyu moomit ndax sama xarita bu yàgg maam ma Sall ancien ministre PCA bu SICAP waaw di sama mbokk di sama xarit waaw vraiment maa ngi koy ñaanal moom it yal na yàlla yokk wér gi parce que ñooñu vraiment ñoo bokk lépp ndax moom ma nga juddoo Kër Ale Kër Ale ak benn la waaw waaye daal li wér te wóor moo di ah am na loo xamante ni daal. bu sëriñ Touba dellu si woon ñu bari dina leen dàq man loolu xam naa ko ñu baree baree bari ñuy wuyoo murit bu sëriñ Touba noonu cëpp fii tey jii dina dina raje ñu bari dina raje ñu baree baree baree waaye nag ma riirandoo yi rek lay raje ah. ñoom lu ñu bari bari amuñu njariñ xam nga sànkar moom guro gu sànkar moom boo ci amoon fukki pañet amul njariñ ñetti doom yu baax a ko gën sànkar si nag laay wax sànkar si nde am na ñoo xam ne fa sëñ tubaa teg tànkam fa lañ ko teg ci doomi sëriñ tubaa am na ci ci sëtam yi am na ci ñoo xam ni fañ ko teg foofu la ko sëriñ tubaa tegoon waaye kenn du leen dégg ñoom xam nga du siiwuñu sax <laughs> siiwu ñu sax <laughs> maara yu siiw yi lañ xam ak yooyu ñoon ñi ñi ñi organiser pecc mi ak di togg yàpp bi góor ñi ak jigéen ñi di jaxasoo di njaaloo di lu nañu koy def ñooñu ñooy siiw c'est ça la réalité ah te man nag loolu ci laa bokk de <laughs> dama li may lu ma xam la waaw ndax taalu be murit la taalibe murit laa sëriñ Murtada moom sëriñ soxna Juma sëy ak sëñ Fàllu mooy sama sëriñ ah sëñ Tuubaa kenn gënuma koo bëgg waaye sëñ Tuubaa bëggul li lii fi ne nii sëriñ Tuubaa soxlawu ko sëriñ Tuubaa la ko taxoon di xeex du folklore waaw ñoom njool ñang ñoo doon taaxuraan ci lañ ko daan déggee ak ñoom Samba euh, Samba Saw ak ñoom ñaaw caw waaye sëriñ Tuubaa da ko dëgg yàlla kenn mosu koo dégg ci loolu moo fi dàq tëgg tëgg di baare mbedd yi di jàng guddi déranger nit ñi kenn du nelaw tëdd naa ba ba ba tëdd naa ba deux heures trente mënu maa nelaw ndax ak en face y avait trop de bruit te tegoo ko fen déranger nit ñi te doo liggéey yow da ngay nelaw ba deux heures ñu yee la añ ni la kaay añ parce yambar nga moo xëy yoroo sa bopp dañ laa yor kooku ngay tàngal ñi nga xam ne nag dañuy liggéey ñoom nga naan ak jaamu yàlla la ak murit la sant sëñ beek koo wax mu naan sëñ bee fi nekk sëñ bi nangam nangam sëñ bi bu fi nee yow neelu la fi sëñ bi boo bëggee ànd moom soppikul waay te nga defee neneen sëñ bi xamul li sëñ Tuubaa xamul lii waaye nag ginnaaw kilifa yi dañuy bàyyi nit ñiy def lu leen neex di ngeen mas a di ngeen mas gis ku wamub sëriñ sax man maa la ko wax parce que nit buñ koy bàyyi muy def lu ko neex ah fu mën ta yegg amul de ab dof dañ koy freiné ni ko fii nga war a yem dof kenn du ko ne yaa moom xew wi kenn du ko ne yaa moom xew wi ku jog mu boo sëriñ Tuubaa di def li la neex koo laal ñu ne noonu ñii dañoo contre sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ku dëkk ci réew sëñ Tuubaa catholique yi sax ba dañ koo bëgg chrétiens yi nekk Sénégal sax dañu bëgg Serigne Touba billahi wallahi tallahi man xam naa chrétiens yu bari yoo xam dañu toog di wax ci Serigne loo xam da nga naan kii day nangam nangam parce que dañoo Serigne Touba lu su koy bañe ku nekkoon ci jaamu yàlla gëm boppam résister pacifiquement lu ñu loo xamante ni fii la ko créé ci Sénégal di nit ku baax bàyyi fi doom yu baax ñu teg yoot xoolal waaye xam ngeen sëñ Touba wax dëgg yàlla moom fawut sëñ Touba fawul waaye nag tant que yéen a koy def fond de commerce nii lay demee am na ay sëtam yoo xamante ni fa sëñ bi daa jublu penku ñu jublu sowu ñoom bari na ci ñoo xam ne la nekk du dara buñ santee mbàkke it topp ñu yoonu sëñ Tuubaa bari na ci waaye am na ci ñoo xam ne nag ñoom fa ñu war a ne ñu nga fa ñooñu nag la ñuy waxal ñu jël seen responsabilité parce que lii nag mat naa seetaan ah, mat naa defaraat mat naa defaraat ñu toog seetaat toogin wi sëriñ Tuubaa bu fekkee da ngay foo demal nga dem jàngi musique mbaa nga defi rap mbaa nga dem jàngi sabar ñooña mën nga ànd ak ñoom mais sëñ tubaa du loolu sëñ tubaa jàkka ja la téere ba tool ya jàngu ba c'est tout c'est tout tubaa wax dëgg yàlla ci loolu lañ ko mas a xam téere ba tool ya jàkka ja jàngale ma jeex na jeex na waaye ne fii dégg nga di wuyoo sëriñ tubaa ah ñenn ñuy wuyoo El Hadj Malick ñenn ñuy wuyoo Baye Laay ñenn ñuy wuyoo euh, xaadir yi ñenn ñuy wuyoo canaba te léeg-léeg nga gis ci koo xamante ni dëgg-dëgg kenn xamul lu muy nuru lu ko neex def lu ko neex wax ah bu boo laalee ñu ni euh, état bi dafa bañ nguur gi état bi dafa contre nii ah euh, léeg-léeg nga dégg léeg-léeg nga dajeeg ni sax mu naa la Macky Sall dafa bañ sëñ Touba Macky Sall nu mu bañee sëñ Touba Macky bu bañoon sëñ Touba dina defar autoroute quatre cent et quelques milliards yóbbu ko Touba tudde ko Ila assainissement ba ca Touba ci Macky def kenn da ko cee mas a def ci président yi ak leneen ak leneen ak leneen waaye am na ñu jóg wax a wax a wax fi ne ni ñu bari dañ naan Macky Sall euh, euh, dafa bañ sañ Touba te dara du ci dëgg Macky Sall taxaw na ni moom taalube la mais nag rambaaj yooyu ci réew mi fokk nit ñi xàmmee leen génne leen ci suñu état bi génne sax di leen déglu parce que du ñu dara c'est de faux type du ñu tos waaw nañu teg yëf yi ciw yoon sëriñ bi loolu nga wax sëñ Mountakha Bassirou yal na yàlla yàggal la fi. ba li nga bëgg raxas Touba nga raxas ko fa bari na fa nag ay mbóot lu nee nga ca biir nag waaw da gis ku nekk Touba sax ba pare contre Serigne Touba <laughs> man loolu xaw ma lu mu doon yow kay boo contre Serigne Touba demal sori ko nag wax dëgg yàlla bàyyi dëkkam boobu moom daf ko créé woon pour jaamu fa yàlla nga dem ba biir Touba installé wu fa ba pare bëggoo gis Serigne Touba bëggoo dégg mbiram yow am nga problème ndax Serigne Touba moom <laughs> kenn mënut a ay mbiram jëm kanam ah yow nag man ngaa yàq sa bopp waaye mënoo yàq yoonu murit de kenn mënu ci dara. nga sant Mbàkke nga sant Jóoba ci yem waaw Sëriñ Tuubaa la ko yàlla may may na ko ba mu ni illa yaxaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini kooku <laughs> kooku ñu bari tuuti nañu pour yàq mbiram waaye nañu tegu ciw yoon te nag kenn ku ne jël say responsabilité muy sëriñ bi muy état bi muy sécurité muy lu mu mënti doon am réew daal bu ay nit taxawee ba koo yàq xam nga di daw bay dugg ci ka tëdd ci kanamu oto oto kuy daw ni ko doo dem te saraxooma doo doo dem te saraxoo ma yorub këll mat mbër quatre-vingt et quelques kilos ngay wër di yalwaan ah ñu bàyyi leen ci quoi man vraiment affaire bi des fois sax da ngay dem ba mu yàgg doo xam loo war a wax quoi ah sun réew mi ku fi nekk te dis gor fi ne da ngaa sonn hmm? moo tax bër ki dem maa ngi maa ngi nuyu waa siin gépp bi nu demee siin di di di di di di ci témoignage boobu buur siin Kumba Ndoofeen Fandeb defaloon Xaadimu Rasuul valeur yu mel noonu ndax buur siin moom xam ngeen ni jamono jooja païen la gëmul dara waaw du du du wolof du tukulóor ab séréer la dëkk siin sëriñ tubaa dëkk bawol mu ñëw seede ko garanti mantoom loolu mooy valeur valeur yooyu nag nun jàngale ko ci suñu école yi moo tax nun neex mel xam nga buñ lay jàngal Baudelaire Baudelaire ak Molière ak Ahmed Bounzala ak ñii ay arabe la ñu ñii ay tubaab ñooñu dañuy dañuy royukaay ci nun sunu aada ji sunu cosaan ji tànk ne duggul ci suñ bopp yi ay dof la ñuy gën a gën di doon nit day xam boppam soo bëggee am valeur da ngay xam sa bopp d'abord xam ñi la meññ xam seeni i valeur xam seen i vertu fa ñu tegoon seen tànk nga man ko faa teg soo indi diine ji diine mënu fee dindi aada ak cosaan waaye am na yenn sëriñ yooyu sax ceddo yi la ñuy yendoo xas ak fanaanee xas te ceddo yi gënoo leen ñoo la meññ loo am ci teraanga ci réew mi ceddo yoo la ko defal pare bu ngeen retourné naan ceddo yi ceddo yi ceddo yi ñàkk xam sa bopp rek ndax ku dul fen du du sàcc ragalul tubaab bi ñëw muy xeex ak moom trois cent cinquante ans seen bakkan yu bari des ca nga bëgg taxaw ni ko baaxoo ci réew mi wala boo ci ku bon nga xam nga ni xamoo sa bopp yow am <laughs> léeg-léeg nga dégg kuy firi aussi la même chose ñuy wax ci diine ji bu ñuy wax ci sunu maami ceddo yi lu bon lañ ciy wax te billaahi gënu leen leen waaw man defe naa ni sax ceddo yi ñoo gën nitu diine yi tey ñi ndax di jullit buy sàcc di fen di wor di jëw di naan sàngara di njaaloo mais yow kan nga gën te lu ngeen wax ni ceddo yi ceddo yi ceddo yi nañu nu bàyyi waay nañu nu bàyyi xam ne ñun ci leen bokk te lu fi baax noo ko def noo dalal alaaji Malick noo dalal sëñ Touba Kajoor ak Bawol waaw ñoo leen joxi teraanga ñoom ñaanal nañ nu bëgg nañ nu waaw buur siin Kumba Ndoofeen mii ñu doon màggal le 7 juin ca jaxaw dëgg-dëgg moom du woon ab jullit waaye tey jii wooyam dootu fay ah l'un des buur yoo xam ni dañoo amuk màggal pourquoi parce que dafa amoon valeur ngeen bëgg a xëy rek di yàq di ceddo yi di yàq seen seen seen réputation te billaahi ñoo tey ceddo gaa ngi dellu si <laughs> yëgu leen ni le pouvoir waa changer de place man maa leen ko wax de le pouvoir waa changer de camp parce que actuellement ñëpp a jaaxle te xam nañ ni bu buñ delloo ci suñu valeur yi ceddo yi kenn doot nu yedd ab ceddo kenn du ko yedd ab ceddo nga yedd ko nga jam ko paaka ci ginnaaw ak ko gënal parce que dañoo am lu ñuy jomb am lu ñuy bañ waaye amoo looy jomb amoo looy bañ yow boo dem jullit doo jullitum dara jullit buy fen di wor di di sàcc boobu jullit day jullitu tous ah xam naa nu yem fii rek incha allah ba ba suba nu nu nu continuer eh, di leen tàggu tey balu àq nag parce que Baye Mame Mbenda Mbuub daf daan wax naan waxtaan yombul da ngay wax taaj kii dina bëgg kii du bëgg waaye ñun newuñu fi nag pour wut lu neex kii wala wut lu naqari kii li nga xam ne daal mooy sunum réew lépp lu nu gis ni bu nu ni defee mu baax dinañ ko wax lu mu nu coûter it merci parce que man nag je me considère comme un soldat au moi je suis à la guerre parce que kenn du yàq sama réew ma di ko fekkee ah comme mënu ma cee xeex mënu maa dóorantey jaasi mënu maa parce que yooyu xewi na mais ma wax nag mu naqari ma lool dong la de te yàlla dong nag laa wéeru ca moom tabaraka wa taala parce que moom ku mu ku mu sàmm nga sàmm yàlla na nu yàlla sàmm nun ñëpp te yàlla dolli nu xéewal te yàlla suppi lii yalwaan mii ci réew mi ku ney yalwaan ku ney yalwaan ku nekk jël sëriñ si def leen ay fonds de commerce yàlla na yàlla na fi dañ tey réew mi ku fi nekk nangoo liggéey incha allah di nga am teraanga boo ko yàqut ah ñu def tegu ci siraatal mustaqim la fi maam yi jàngale woon buñ ca jaaree du ñu am problème waaye léegi kenn ku ne da ngaa créer sa benn entreprise boo xam ni dinga nga fexe bay mos dara rek loolu nag réew mu bari mu tas yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla aar Sénégal salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah incha allahu ba suba